ku ne tissu ni ñaw ku ni ñaw ni modèle waaye ku ne modèle bu rafet euh, ni takkaay bi muy àndal bijoux yu rafet yi nga xamee ni yéen a koy gis euh, depuis cinq dama cee bëgg a wax ak yéen ba ci bi nga takk mu ne put rafet lii mooy taaral sañse takkaay bu rafet. takkaay bu rafet Pape Cheikh comme ni nga ko waxee tamit euh, liñ naan or li jeeg ji bëgg. waaw ndax nag euh, or du te du soppeeku. Uh-huh. te boo ko amee ba denc ko lu ko waaye jëndee jar na ko. foo uh-huh. jaaxlee boo ko fëggee mu fajal la sa soxla. dëgg la de rek moo jar a wuti. <laughs> xale yi naan li woyu bëgg. li woyu bëgg jee ko gën a soxla woyu yu de. fuuf kenn musul gis. kenn musul gis yu rafet yi nekk léegi ci dëkk bi. dëgg la ba noppi nag léegi ñoom dañ koo yombalal ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay euh, or yi rawatina Mass Touré mm-hmm. pour pour toutes les bourses la mm-hmm. léegi defatuñu jigéen bu nekk mën nga cee am même bu fekkee fekkente danañ ko def natt. dinañ ah. def ne loo am rek nga aar bàyyi ko fa te loolu day yombalal képp kuy jeeg ndax jigéen ñëpp a mérité takk or nag. te Mass loolu lay def keneen ak keneen noonu waaye tey Mass Touré moo def nii génn ci li na putt nii. waaw donc loolu mu def. jigéen ñi di ko def te Sénégal xale yi xewal nañu Mass. Mhm. àdduna xewal nañu Mass Mass Touré moomu nag ñu ngi ko fekkoon marché Tilène laataa mu ñuy rejoindre ci plateau bi dama bëgg ñu dem fi nga xamee ni mooy bijouterie Darou Salam. lan ngeen xalaat ne moo mën a taaral jigéen ci tabaski bi xanaa ay bijoux or ak ay bijoux argent yu 21 carats wala 18 yoo xamante ne boo leen demee si Mass Touré bijouterie di ngeen ko fa fekk lu ci mel ne ay radoku ay sautoir ay jaaro baram ay lam lépp nag yu dernière génération marque boo leen bëgg di ngeen ko fa am marque Pola Boucheron Pandora bracelet ay collier yëpp nag nee naa leen 21 carats ak 18 carats boo leen bëggee sax marque Pomi marque Bahraini Cartier ay Louis Vuitton ay Chanel ak yeneen marque yu baax yu yanj yoo xamante ne boo leen ko takkee kenn du leen gën a sañse te seen sañse dina fës te rafet loolu naka ngeen koy fayee Mastouré bijouterie nag yombal na leen yëpp boo leen bëggee ngeen fayee ko xobet xobet maanaam o comptant boo leen bëggee ngeen def acompte wala dépo te bu boobaa dingeen jot ci seen ay bijoux Mas Touré lépp lu ko tax a jóg rek mooy seeni bànneex Mas Touré bijoutier nag boo leen ko bëggee xam fan la nekk dem leen ca marché Tilène avenue Blaise Diagne ca Médina Dakar wala ngeen woo leen ci numéro téléphone yi ma leen di jox 77 616 53 80 wala 76 503 57 57 Maas Touré bijouterie daal lu yaa ngi dong lay defar. et on poursuit moo tabaski 2019 ma bëgg ngeen tàccul ma bu baax Mass Touré moom la ñu fekk woon fi nga xamee ni euh, moo di euh, bijouterie Darou Salaam nekk marché Tilène Mass Touré mooy ñëw fekk suñu fii euh, ci plateau bi sànq wax naa ko Mass nit ñi dañ koy xaar li tax ñu koy xaar mooy la muy jaay a baax ba noppi itam la muy wax day dalal xelu client te moom suñu xarit la ndax ndaanaan la Aïcha waaw waaw oyel Mass Touré Mass la ñuy xaar way way way waaw waaw waaw yow Mass xamoon nga ni boo ñëwee sa yëf nii lay mel yow sa lépp ala daw me yow xamoon nga ni boo ñëwee rek fii jaxasoo Mass Touré ngi Mass Touré ngi bijouterie Darou Salam waaw waaw Mass ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum Pape Cheikh. salaamaaleykum Kebs Thiam. dañuy sant yàlla bu baax. ndax sama xel dafa gën a dal tey. ndax keroog Pape Cheikh la woon. tey Pape Cheikh ak Kebs Thiam la. kon équipe originale bi lañ booleek man. kon nag cela veut dire que tey dara warut sedd. waaw Pape Cheikh. <laughs> damay nuyu kilifa diine yi du nuyu kilifa aada yi. di di jiital si nuyoo bi sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimul Axlaax. mi nga xamante ni que sama diggante moom nekkatul taalibe ak sëriñ waaye diggante sët la ak maam. Euh, Pape Cheikh maa ngi nuyu président de la république monsieur Macky Sall mi nga xamante ni que moom lañ dénk réew mi tey ak euh, soxnaam Marème Faye Sall mi nga xam ne mooy yaayu réew mi. di ko nuyu encore une fois di ko ñaanal bu baax mu am tawféex ndax bu amee jàmm rek ñëpp am jàmm di nuyu sunu maire bi nga xam ne mooy maire Medina Bamba Fall mi nga xam ne mu ngi ñuy jàppale saa su nekk ci assurance ci sécurité ci lépp pour suñu liggéey gën a mën a yemb di nuyu ki nga xam ne ni que mooy borom kër gi di Youssou Ndour yal na ko yàlla jàmmal amiin na ko yàlla may tawféex amiin ndax moo waral lii lépp tey Pape Cheikh du nuyu public bu rafet bii du nuyu diaspora yëpp Pape Cheikh fois asalaamaaleykum. di nuyu su lay wax maas. waaw lu may wax maas man man maas daf maa jaaxal daal man daf maa jaaxal maas. dafa dem ba dafa am fan sa club bu boppam. waaw est-ce que xam nga ni gis naa ay nit ñoo xamante ni dañuy jóge seen kër fajar. dem rang nga foog ni dañuy jënd ndeke dañoo seeti maas. donc fan club bi. bokkul ba tey ak client yi. nit day dem léegi jënd ci moom. Mhm. ñibbi woowaat ko ñëwaat ndax fans muy ku am relation bu particulière ak ay clientam loolu xam naa dinañ ci waxtaan ak moom mhm. mais maasa ngi bijouterie Daaru Salaam eh, ah, très bien waaw noonu la Pape <laughs> munta ñàkk ndax da nga ne maas la Pape xale yi dañoo doy waar de waaw waaw waaw parce que moom la liñ naan euh, Euh, ku nekk ak ni nga xam ne noonu ngay doxalee lu mu def noonu marketing la uh-huh. moom dafay réussir li nga xam ne moom moo di marketing am uh-huh. mën a jaay yëfam waaye itam sociable uh-huh. nit ñi bëgg ko lool apprécier ko ndax nit ku baax la lu jiitu li nga xam ne moom lay liggéey ba noppi nag mu teg tànk nag fii ci wàllu or ak tëgg mu rafet nag ci Sénégal waaw dëgg neexul dëgg la Mass dalal nañ la waaw maa ngi sant bu baax si suñu teewaay fii uh, télévision TFM dañuy sawar si ñëw fi ndax télévision la boo xamante ni que ba mu juddoo yàggul waaye dafa wër àdduna lépp bari nañ waaye équipe boo gis am na capitaine yàlla dafa dogal yaay yéenay capitaine yu tele yi yal na yàlla dolli sutura amiin bijouterie Daaru Salaam nag day bijouterie boo xamante ni que dañ fekk suñuy waajur sanc ko ñu nekk ci di si liggéey liggéey bu rafet te mag nu muy xalaatee ak xale nu muy xalaatee du benn mm. xale yi ñooy xamante seen biir xale yi ñooy ànd seen biir xale yi ñooy xam li xew te boo dul génn di dox positivement doo xam lu xew bijouterie Daaru Salaam matière bi or la or la comme or yëpp waaye or bu nekk ak dañ koy defaree or bu nekk ak nañ koy mooñee or bu nekk ak ka koy xalaat ak nam koy xalaatee ak naka la gisee aspect wu jigéenu réewam ndax or doo gis ni or xew na rek nga dem jën li nga xamante ni que parce li naar bi di takk mu génn bokkul ak lu sénégalais bi takk mu bëggee na lu bët maanaam nit ñi li leen yàlla bindee mhm. noonu la ñuy wuutee kon noonu la ñu war a wuutee ci ay takkaay mhm. ñun nag yàlla def ñu dimbali ñuy livre boo xamante ni que benn page un rek lañu ibbeegul mhm. page 2 ah. bi sax ñëwagul. Ah page 1 page 1 rek. yi nga fi jot a def ak yi fi jot a xew. rek la ak fi réew mi toll nag ak fi nga toll ci réew mi benn page ba ubbeegul. man ak yéen histoire lay doon. Mm. te conclusion bi ñëwagul de. Ah. dañoo war a ànd fu sori. maam dañ ibbeeku pour jigéenu Sénégal. ibbeeku wuñu pour suñu bopp. pour defal suñu bopp. mais nag dañ ne boo ñëwee ci kër. ak nga dem ci beneen kër boo ñëwee sa kër dina lañ defal ba nga ba nga suur waaye da lay defal wiisal xam nga li ñuy wax tagal. boo tegee paanu gerte ba mu yegg. yaa ngi dégg mag ñi xam nañ ko. boo tegee paanu gerte ba mu yegg. am na beneen pot bu ñuy jël defaat ci gerte teg ko ci kaw. ko wisal boobu nag ku ko bëgg nag bijouterie Daaru Salaam rek ngay ñëw. waaw ah, waaw tàccu leen loolu bijouterie Daaru Salaam. waaw ba pare mu mel ne Pape euh, jigéen bu nekk ak or bi mu war a takk. Mhm. au delà de li nga xam ne moom moo di da ngeen di tëgg. Mhm. da ngay créer da ngay importer di indi. Mhm. waaye itam euh, li nga xam ne moom moo di euh, styliste nga en même temps. waaw parce que di nga xool ne lii. Mhm. Euh, moo gën a jàpp kii wala nan nga koy defee. xam nga nit ñi yàlla da bind. Mhm. te nduroowuñu bind. dëgg boo xoolee li may wax toujours. Mhm. ay taay fiin ay jeeg double jeeg. yooyu yëpp daf fi am. xale yoo xam ne dañ diggu doomu. ñii seen cër yi taqaloowul ñii seen cër yi dafa dafa dafa taqaloo. yooyu yëpp da nga koy bàyyi xel. xam nga affaire bi. du jël rek takkal. Mhm. bu doon loolu ñëpp def ko. dëgg la mais nit kuy ñëw si ñun dañ lay xool xalaat. Mhm. xam ne jaaru nopp bi képp si caab bu ñu ko takkalee dina génn. Mhm. parce que mënuloo fekk xale boo xam ne dafa def greffage wàcc ci kaw ba ci suuf exemple rek joxe. nga jël ay jaaru nopp di ko takkal du génn. du feeñ da ngay sono sa bopp. da ngay xool loxo ba dafa war a dem nga takkal ko bracelet. ak jaaru baaram bu toog. bu ko defee gis nga lu am valeur boo ko takkee boo demee ci xew di mayee cent francs sax day mel ni junni ngay mayee. est xam nga loolu. parce que da ngay valoriser sa bopp. Mm-hmm. ndax àdduna lépp sag la. Mm-hmm. lépp sag la ñun nag boo ñëwee dinañ xool li nga xamante ni que moo yeyoo ak yow même bu fekkee mode de paiement yi dafa xaw a saf ci yow am nañ ay modalité de paiement yoo ni que boo ñëwee dañ koy allégé day gën a am tawféex ci yow. parce que dina am ñuy bëgg mais du ñu mën. du mën du ñu mais ah. xam nga am na système boo xamante ni que. Mm-hmm. boo ñëwee da siy jàppale. ok ndax am nañ kay bu mag boo xamante ni que kay social lañ ko tuddee. très bien ku am ñaar fukk. 1000 francs 2000 da ngay ñëw verse ñu jëlee bindal. parce que arrivage day ñëw tout le temps tout le temps mm. arrivage saa bu ñëwee da ngay dugg suñu statut ñu dugal li nga xamante ni que mooy le maximum possible. pour ngeen am si aperçu. Mm-hmm. ku si gis loo intéressé boo ñu defee si après ñu teel la ko xool ni nga xamante ni noonu ngay def ba nga jot ci. Mm-hmm. en tout cas daal. Mm-hmm. ñu ngi fi pour ñëpp. ñu ngi fi pour ñëpp. waaye jigéen ñi daal laa gën a faral Pape <laughs> nga yee. bi nga fi mujj euh, bi nga fi mujjee euh, euh, titin bee ñëwoon man keroog dem naa fa gis naa titinu or bi lan moo ñëwaat nii ci tabaski bi. tabaski bi uh-huh. dama indi loo xamante ne lu extraordinaire la. muy lan Mass. lu garaaw. ci Mass lu rafet. lu doy luy neexal Sénégal. xam nga loolu nu mu tudd. loolu loolu lan mbicci mbicci or. li mbicci mbicci or. mbicci mbicci or gis nga du tur bi garaawee. mbicci mbicci or. Pape Cheikh mbicc mbicc or. non man baas. mbicc mbicc or boo xoolee cosaanu lawbe la. Ah. te lawbe ak ñeeño sorewuñu ndax nit ku nekk sa cosaan am na loo am waaye boo demee si cosaanu jàmbur. Mhm. li nga yor ak moom li mu yor ngay jéem a boole génne ci lu extraordinaire. Pape Cheikh mbicc mbicc or. Mhm. sër bu gàtt lay doon. Mhm. Pape Cheikh mbicc mbicc or ba mu koy xalaat dama jënd juróom-ñaari xar yu ndaw. woo lawbe yi di def ay dooma daaw xar. dooma daaw xar. di def ay ceebu yàpp xar. ay maas. di def ay maafe xar. créateur la. ay maas Pape Cheikh ba ma toggee mbaxalu xar bu tooy ba la ko seen maam xencu génn jox ma idée bi. ne la ne la génneel mi na ma kaay ma la mi ci mi ci or nañu koy defaree. <laughs> mais secret bi ñoom ñoo ko yoroon quoi. ñoo ko yoroon. Ah. mais sama touche dafa war a ñëw. dëgg la xam nga loolu Pape mbicc mbicc or dañ koy bind comme dañ ko war a bindee waaye dafa am ay loo xam ay ay boo déggee tuddee ko mbicc mbicc dafa am ay échantillon wu yoo xam ne maa ko ci yokk. Ah. est-ce que dégg nga baax fi ma waxee. man kay parce que fay làmp mu ne kurus dafa wóorul mën ngaa dëgg xott bi del dafa war a tàkk ngay am repère. man kay am damay jóg dem léegi. xam nga dama fi ñëwoon wax la bébé VIP Pape Cheikh. ku ci bëgg am doom bu tekki. ku ci bëgg am doom bu baax ku ci bëgg am doom buy faj buumu gàcce yi ku ci bëgg am doom boo xam ne doo génn di ko wëri ku ci bëgg am doom bu réglé ñool ma jox la échantillon mu mbicc mbicc nga xool la may saf sa kër dina neex mais mbaa mbaa mbaa am nga ci stock bu doy parce que xam naa ne bu ah. émission bi jeexee dès demain wala ci guddi gi commande yi dina ñëw est-ce que mbicci mbicci or am nga ci commande am nga ci stock bu doy waaw ndax ñëpp mën nañ ci am Pape Cheikh mais est que am nga ci vraiment stock bu disponible bu bëri. ndax li nga wax yóbbu nga xelu ñëpp. en tout cas daal naa la xamul benn affaire. waxal li muy réglé bëri na de. Euh, ñi njëkk am moom. Mhm. yërëm naa ñuy topp seen ginnaaw. stock bi waxuma la doy. mais façon boo bëgg nag am na ci. Hmm. boo jógee si mbici ci or ba lépp am Pape Cheikh da ngay ñëw ci ay chatoiru 21 carats. waaw. Pape Cheikh am nañ chatoiru 21 carats yu génn yoo xamante ni que kenn mësu koo gis ci kaw suuf. chatoiru 21 yoo xamante ni que amul fenn design yu bees tàq man ak Serigne Touré dañu toog ay fan di ci waxtaan ba ñu jugee mode Korité ba léegi man ak Serigne Touré amuñu jàmm sama mag ju baax ci. pour créer ñu di ci liggéey ak bëccëg ba génne ci ay modèles yoo xam ne amul fenn. Mhm. caaru nopp bracelet am naa bracelet yoo xam ne nag yii pour yàq dëxin la yii pour yàq maafe yii pour yàq ceebu jën ah. ah bracelet bu nekk ak li muy lakk. bu nekk ak ba muy yëkkati. Mhm. parce que mënuloo yeewu fajar takk say bracelet yi di ji romb sa jëkkër day yaakaar ne da daam la dal. da takk say vis su ndaw simple. maanaam bracelet bi ngay xëy sa jëkkër ray rayee ko xar. bracelet bu bokkul ak bi ñuy lakkee yàpp. bi ñuy añee. du bokk ak bi ngay ñaanee bi ngay jullee. mukk parce que mënoo téye di ko yëngal takk ay bracelet yu mag muy keñeŋ keñeŋ balaa balaa suukar bee seey mu doyal. waaw da takk lu ndaw fétiche bu sew di ko yëngal ndànk mu di ko gis muy melax tuuti moom envie naan ko. waaw taajan ba sax da cay am solo. waaye lii. xam nga jigéen. <laughs> ay waay. c'est ça. waa yëngu bu leen ma yëngal boo àndeek ay nit ñu topp sa ginnaaw waa jeune bijoutier waa ñaari tali waa pikin waa Géejawaay waa Liberté extension waa Médina ñëpp topp sa ginnaaw Pape Cheikh da leen war a sagal bu ñu lay xool wax si yow wax si yow dafa war a yomb waaye waroo leen sonal am na noo xam ne boo ko melee wax ci yow day yomb te ñi ay xale yu am jom lañ duñ wax luñ gëmul Pape Cheikh bijouterie Daaru Salaam nag li may wax rek numéro bi mi ngi noonu place mi ngi noonu ibbil nañ ko ñëpp suñu objectif nag lenn la parce que ñun ñu ngi jaay àdduna bépp waaye dafa am loo xamante ni que dañ ko bëgg a jariñ suñu réew mooy lal mm, président Jabara mi nga xam ne moo fi nekk mi Marième Faye Sall dañ bëgg nit ñi di defee touriste di wër ci àdduna bi di dem fu nekk doomu réew mi tëgg yaa ngi fi di liggéey loo xamante ni que moo dàq ci àdduna bi tëgg yaa ngi fi di dem Gabon mm-hmm. ñu ngi fiy dem Mali mm-hmm. ñu ngi fiy dem fu nekk ci àdduna bi te doomu Sénégal rek fii nekk di tëgg. booy nekk ci taabal bi di tëgg sonn nañu te li ñuy tëgg kenn di ko tëgg ci kaw suuf. dëgg la nan leen jàppale. ba touriste yi ñuy def di wër ci àdduna bi. ñu def tourisme boo xamante ni dañuy ñëw di xool lu doomu Sénégal di tëgg ci réew mi loolu mooy suñu objectif loolu la budget wu Sénégal yëpp di xeex di ko jéem ñu ngi ciy def lu ñu mën. di sant nag. Mhm. di gërëm bu baax. Mhm. yéen ñu fi teew ñëpp di gërëm Pape Cheikh Diallo di gërëm Kebs. Mhm. Pape Cheikh di gërëm sama sëriñ encore une fois sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makarim wax laa nga xam ne mooy sama lépp di gërëm sama grand frère sëriñ Touré mooy sama lépp aussi di gërëm sama waajur bu góor di gërëm sama ñaari waajur yu jigéen ñi ami kese ak awataal mooy sama yaay yoo xam ne dañ ma jàppale trop mënu ma ko ñàkk wax di sant waa Sénégal yëpp diaspora bi moom moom moom moom moom wax dëgg fa yàlla ñoom xam ñoom xawma lan la amatuñu jàmm moom guddi ak bëccëg ñu ngi woote Pape Cheikh xam nga ne barke Serigne Touba damay wuy téléphone ba deux heures du matin barke alxuraan rien que pour bañ ñu mer il faut ma décrocher. Mm-hmm. Pape Cheikh nañu yàlla doole sutura. seen ànd bu rafet bi yàlla bu ko dara yàq. amiin maas Pape Cheikh yàlla na la yàlla mosal si cat. waay amiin waay nit ku baax nga nit ku dal. nit ku réglé nit ku xam sa bopp. amiin moo tax ma naw la. kontaan yàlla na yàlla doole sutura. amiin yàlla nañu fa dajewaat si jàmm. li may wax doomi seen ndey yi gërëm rek ñooy màgg daje. sant leen seen yaay noonu ndax seen bàyyi da leen gërëm moo tax ngeen daje fii <laughs> kon nag tàccu leen seen bopp jaajëf ñaa leen ma laay. loxo bi bu ko dara dal. waaw yal na yàlla dolli sutura. jaajëf jërë ngeen merci Mass kontaan nañu Mass Touré. Mass Touré fàttaliwaat bi et tout ça. Pape Cheikh Mass Touré bijouterie Daaru Salaam. marché Tilène téléphone am di 77 616 53 80 wala 70 648 48 18 wala 76 503 57 57. moom nag day def reprise day jëndaat or day commandé day defaraat li nga xam ne moom mooy or bu yàqu bijouterie Daaru Salaam nekk Mass Setti leen suñu xarit Mass